asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yéen ñi nga xam ne ne sax waxtu na seen biir Diwane TV ñu nga leen di nuyu baax di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen di wax ni ngeen way di abonné tey partage vidéo yi di jégalu baax a baax mbokk jullit yi nga xam ni fu nekk ñu ma fay woowee ak dañu envoyé message vocal waaye nag message lu yàgg-yàgg des na ko liir incha allah. waaye képp koo xam ne envoyé nga vocal te yéex koo lire rek bu mënee woote mu woote moo gën incha allahu rabbi woote appel direct incha allahu rabbi te appel whatsapp bi nañ koy bàyyi ak ñu féeteeg réew ma ñi xam ñoo nekk Sénégal danay woote appel normal appel direct te bàyyi appel whatsapp ak ñi xam ñoo féetee réew ma yéen ñaanal jàmm te di ko sàkk si yéen comme ni ko baaxoo def saa su nekk rek njëriñ leen di indil bés bu nekk ci alxuraanul karim baaxoo dana dellu siwaat ak ci njariñ bi nga xam ne daal jël ci jàngoro joo xam ni kenn xamul lu koy faj jàngoro ju tëwër maanaam ndax ñaara nit dina am jàngoro joo xam ni du xam lu leen saafara ga mën ngaa dem hôpital dem ci sëriñ si fu ne dem fa doo xam lan mooy saafara jàngoro ji waaye lii may bëgg képp ko def jàngoro jum mën a doon incha allah rabbi ba ma ko defee nii ma ko waxee suñu borom dana ci defal ak saafara. waaye laata loolu la ñu dékk ak yéen présenté leen ni nga xam ne noonu la ñuy liggéeyee yow mi nga xam ne nga am jafe-jafe yi moo xam nga tëju ci wàllu wërsëg wala nga bëgg ko seetal wala ku la les ci xaaral walla yow mi nga xamante ne da nga bëgg bayre bayre mbooloo moo xam place la bu mën a doon moo xam ngay jaay wala nga yor place bu mën a doon nga bëgg fa mbooloo am nañ ci secret boo xam ne ñu ngi ko tuddee woote maanaam daawa boo xam ne képp ko jëfandikoo lu nekk dana la dikkal moom nag bala ñu ko defal kenn dana ko sayte moom am kaaraange ñu doon ko defal képp ko bëgg buñ jokkoo incha allah rabbi da nga ko am waaye nag am nañ secret wërsëg bu ne lool boo xam ni daal yéene naa ko mbokki taalibe yëpp moom daal ko mos ko nekk danga ko xam waaye nag xaw naa seer waaye lu baax it jar na ko moo xam ku mu doon ak loo tëju tëju. secret bu ma ko sañoon wax daan toog muy dox la toog dox ci wàllum wërsëg ak kum mën a doon boo ko jëfandikoo bu say mbir tàkk loolu tàkk mukk waaye mi nga xamante ni bii da ngay bëgganteeg jigéen mu xaw a dëgër nga bëgg seen diggante am si ak juboole incha allahu rabbi buñ si jokkoo mën naa jàppandi waaye mi nga xam da nga amee garabu émorite feebar bi mooy bu nëbb bi ak bu feeñ bi kum ci mën a doon incha allahu rabbi kooku moom sawar ci lool te duñ taxaw ak moom feebaru soppis waaye mi nga xam ni danga bëgg ay këyit moo xam nga nekk réew ma wala nga nekk senegal ba ki nga xam ne day concours moo xam lu mu bëgg a jël moo xam bac lay def wala BFEM wala façon concours bu mën a doon incha allahu rabbi buñ si jokkoo suñu borom mën na ci defal tawfiix waaye duñ fakk ki nga xam ne daa bëgg kaaraange. wala ki nga xam ne safoor la am na permis te amagul oto bu mu dawal kookoot incha allahu rabbi buñ jokko suñu borom mën na ci def ak yéwén waaye bayre jigéen am na bu kéemaane bayre njaay am na waaye nag mbiri li may faral di wax rek am na ko bëgg moom faw mu jaral la waaye mbokk yi ñi di présenté jaara boo xamante ne bii jaara bu kéemaane la jaara bi nag caaxaan taxu ko am xam naa bu ko fukk bëggoon ñu koy am moom ñaar lay doon wala ñett ndax daa cher lool lool sax waaye ñun ñu ko yor xam na li mu doon da xam na li muy jariñ jaara boobu du jaara como moo tax ba bëgg léegi sax présenté wu ma ko waaye ku ko bëgg ku nekk naa la li muy jar bula la jaralee xayrun bu la ko jarul nga bàyyi ba man ko te seet li sa doole tollul ndax nit ñi buñ dee ànd ni ànd ci dëgg ndax lu baax moom ñëpp ko bëgg waaye boo ko bëggee tam wax sa doole tollul danga koy jël la nga tollool ba jëmmi jamono ba suñu borom defal la tawféex waaye jaara bi képp ko am yow ko am di am ku amul di am koo laaj ma jox la koo layool ko yay moom force moom am gi ma mën naa ne force la te di nga yëkkati ko lool sax loolu tam am nañ ci càngaay yu kéemaane yoo xam ne incha allah képp koo xam ne jëfandikoo ko danga ubbi ko ba yéemu lool ak yeneen i mbir yoo xam ni ñu bëgg wàllum football ak ñi nga xamante ne bii dana bëgg ak yëkkatiku ak ñi nga xam da nga bëgg kaaraange ak soxna yi bëgg borom kër ak ñi nga xamante ne bii dañoo nekk ci ay diggante xat-xat jafe-jafe garabu kër gi am na 100 pour cent naturel incha allahu rabbi kon mbokk ñu dem ci li nga xam ne moo ñu tax a jukk mooy bato yi ngeen di gis nun koy jëfandikoo da wut semmiñ semmiñ mooy li ñuy xaree matt li ñuy xaree matt weñ gi nga xamante ne mooy nekk ci bant bi ñu koy wax aw njuur weñu semmiñ googu ngay jël nga bind ci baat yii baat yi ngeen di seen moom nga ciy bind ba pare nga jël weñ googu nga taal gaz wala nga wut fourne bu yanj daf ci këriñ boyal ko ba mu boy nga teg ci weñ googu ba ñu gisee googu nga teg ko ci ba mu tàng ba xongu cur nga tànq siwo ndox nga dugal ci semeñ woowu boo ko dee gis day suus di saxaar nga bàyyi ko ba mu sedd ki nga xamante ne moo feebar feebar boo xam ni kenn xamul lu koy faj mu def ko saafara du si naan bu xëyee muy bu ndekkee bu añee bu reeree noonu la koy naanee ba pare nga defaraat fi beneen comme noonu mu sangoo ko incha allahu rabbi feebar ba feebar mën a doon suñ borom dana ko saafara ci lu gaaw a gaaw kon mbokk yi loolu leen indi loon tey jii ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax te leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu